sentence ci retour CENI eh, bi ñu bëgg a euh, consacrer avec des concertations CENI dellu ginnaaw la damay wax souvent président ba Bassirou ay Faye Macky Sall mooy le premier des modernes moom bu bëggee Sénégal avancé na nekk le deuxième des modernes na consacrer son énergie au lieu muy def des assises sur la CENI na def des assises sur l'économie c'est-à-dire Sénégal amul problème politique sur des ah, Sénégal amul problème politique amul problème institutionnel dëkk boo xam ni conseil président day décider conseil constitutionnel censuré ko wala président décider mu dem cour suprême cour suprême censuré y a des y a deux choses intéressantes quand tu vois la guérilla judiciaire de l'affaire Ousmane Sonko léeg-léeg nga dem état du Sénégal bëgg dara benn juge bu nekk Ziguinchor ni noonu li état bëgg du ma ko def annulé ko nga dem cour suprême cour suprême ni noonu delluwaat tribunal dem leen tribunal cour d'appel bu Dakar cour d'appel Dakar Ousmane Sonko moom dëgg dëkk bu mel noonu boo fa nekkee c'est état de droit la maintenant boo amee état de droit l' état de droit dafa war a créer les conditions pour que dëkk bi mën a am croissance dëkk bi mën a émerger ça veut dire que le Sénégal a réglé la question politique le Sénégal a réglé la question de l'institution le Sénégal a réglé la question de l'état de droit boo xoolee conseil bi tey jii Sénégal fépp ci monde ñëpp ak ñu tàccu parce que li am Sénégal bi ñu ko gis ci Afrique dëkk bu mën a organiser élection en trois semaines dëkk bu mën a def transition en gisuma ci àdduna bi dëkk boo xam ne capable nga fal un président le 25 mars installé ko le 1er avril te doom président Diomaye esel nañ ko léegi c'est le chef président de la république chef suprême des armées dëkk baa ngi dox gisoo benn couac donc dëkk bu tollee foofu dañoo war a réorienter suñu énergie sur la question économique mais maintenant seen dellu ginnaaw la xam nga ñoon ñoo yeewu seenu seen mooy dëkk yi nga xam ni dañoo nekkoon ci guerre civile wala ñu nekk dans un pays de transition démocratique mais Sénégal fii ñu ngi war depuis 1848 ça veut dire que seen seen i ce un bond en arrière boo xoolee euh, yow nga nekk opposant dem élection a à 58 pour cent ñu installé kon kay problème système système électoral baax na maintenant li may wax rek Sénégal dafa mel nii dañuy chercher des nations parfaites ça n'a jamais existé nulle part et ça n'existera jamais maintenant les nations deviennent parfaites avec le temps tu as des institutions ça fonctionne on laisse les nations telles quelles ñëpp di ci adapté wu maintenant affaire Séni bi ñi mu rek li may wax mooy les rentiers de la tension électorale Sénégal am na ñoo xam loolu la ñuy dundee tension électorale créer tension électorale Macky mooy le premier des modernes parce que c'est lui qui a dit je le Sénégal doit aller vers l'émergence et on a les résultats on a eu des de croissance permanents depuis 2014 on a vu les infrastructures Sénégal loolu la bëgg ça veut dire li may wax dañoo bëgg a dab Dubaï maintenant boo bëggee dab Dubaï parce que boo xoolee sur le plan géographique ñun ñu ëpp avantage Dubaï nous nous en face des États-Unis on a la mer nous sommes a la mer de l'Europe nous sommes maintenant boo bëggee dem Dubaï nag mais nit ñi faut pas nit ñi di la distraire di la tardel. yow jàpp nga ne